ndaysaan ñu ngi toll ci demi finaal yi ci wàllu 86 kilo bi ndaysaan muy ngóor ñaax wala gànja faama ndaysaan ma nga noonu ngóor ñaax moo daan léegi gànja daw na jëli ko génn na saaku yi indi waat na ko ndaysaan moom gànja faama arbitre bi sifle waat na ndaysaan ñu ngi noonu Sénégal 2 Burkina 0 ñu ngi noonu Sénégal am na ñaari ndam ci demi-finale bi ndaysaan par équipe bu suba ñu def compétition par individuel ginnaaw suba ñu def finale bi ndaysaan boole raaye yëpp teg par équipe ak par individuel ndaysaan lii làmb ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan ma ngay daw ma ngi koy yóbbu ma ngay daw da ko bëgg a jàpp faama bañ na fàqat na ko wër na ko ndombo da ko bañ na burkina bañ na da ko bëgg a dóor daan na ko Sénégal 3 Burkina 0 yanawti nañ ko ba ci kaw dóor ci suuf wala nga xam ci teraanga teraanga ci kaw dóor ci suuf rek waaw waaw waaw teraanga ba ci lan bu seqee compétition bi di ñaan ba ci kaw dóor ci suuf déedéet teraanga bi moom ci biti la waaye bu arbitre prime ah yanu dóor ci suuf rek a fi xew ndaysaan xale baa ngi noonu ma nga noonu ndaysaan ma nga noonu ndaysaan ma nga noonu